في تصرفه الحمد لله إيماني ومعتقدي صلى الإله على النبي الهادي ما لاذت الأرواح بالأجساد أيها الجمع الكريم أيها السادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نهنئكم ونهنئ أنفسنا بحلول هذه الأيام المباركة أيام مولد النبي صلى الله عليه وسلم أيام شهر نبي الأول الهادي أيام شهر الربيع الأول البادي سر الوجود به أيام أعياد أيام أعياد إسلام أيام أعياد إسلام ذووه سروا بها كما سيء ذو زيغ وإلحاد إن المحب لفي واد يهيم كما سوى المحب يهيم الدهر في واد وأخصص بالشكر والتهنئة هذه اللجنة الموقرة على جهودها العظيمة الجبارة التي لا, تز... لا تزال مر الأيام والليالي تذكر فتشكر حيث عودتنا في مثل هذه الليالي والأيام جلسات علمية تنهمر منها أطايب الفهوم ونوادر العلوم والله يتولى نصرهم عنا wa yajzihim xayran wa qad wuffiqtu walillahi alhamd fi taqyidi ma kulliftu bilkitaabati anhu fi asrin wa jiizatin maca muraacaatin li ijaazin gayri muxillin wala ala muqtada zamani yafridu calayna ويرغمنا على عرضه باللغة المحلية حيث أن السواد الأعظم من الجمهور يتكلمون بتلك اللغة الحمد لله ñi ngi sant yàlla ñi ngi nuyu mbooloo mi góor ak jigéen mag ak ndaw di ci jiital sang yi tedd eh, ci njiital Seyd Ahmed Bukaar ak ñi feggoog moom yépp suñuy mag yi fi nekk ak suñuy nijaay ak mboole mbokki jullit ñi di leen ndokkeel ci weer wi ñi nekk nga xamante ne mooy weer juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy tànn mawdoo boo xam ne ne danañu wax faydu gannaaw at yi nga xam ne yàlla def na ko mu nekk ci suñu biir ngir xettali ñu loru ngir dimbale ñu soxla ndimbal ngir gindi ñu réer ñi waxtaanee ci te dëgg-dëgg ku waxtaanee ci loolu danga waxtaan lay njëriñi faydu danga waxtaan ci fam tàmbalee waaye danga waxtaan ci fi mu toll tey te amaana faydu fi mu toll tey boo ci waxee ñu bari ni mu demee ak ni mu war a demee nit ñi dañ la boole ci xulookat yi te fekk na nekk loo xulookat waaye dëgg moom dañ koy wax ala kulli xaal bu ñu xoolee danañ gis ne fayd bii di fayd mawlaana cheikh ibrahim radiallahu anhu mayeg yàlla la boo xam ne dafa gongee ko ballee ci xaqiqal muhammadiya yàlla feeñal ko ngir jaam yi am yoon boo xamante ne ci lañuy doxee jëm ci seen borom dox boo xamante ne dara mënu koo taxawal waaye mu nekk mayag yàlla boo xamante ni dañ koo cuubee nuuri leeri dëgg ak ànd ak dëgg boo xamante ni lépp luy caaxaan bu taxawee ci kanamam rek daf koy faagaagal faar ko euh, lépp luy neen daf koy faagaagal faar ko sànni ko saxal li nga xam ne mooy dëggantaan li jaam bi war a gëm mooy sànni lépp luy bokkaale ànd ak kennal yàlla sellal jaamu ko jaamu goo xamante ni du ànd benn sikk waaye dara du ko jaxase te euh, waxi caaxaan yi caaxaan tamit du ci du ci dugg te du ko mën a changé wa dalika alfaydu min rabbi wa manshauhu xaqiqatu almustafa aljaali amal laayibi faydu bi fi gongee ko fi sosoo euh, mi ngi tukkee ci yàlla waaye sosuwaayam mooy dëggantaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne dafa ñëw wuññi lépp loo xamante ne euh, euh, ngumbaak fox moo ko fi indi te bokk na ci jeexital yi nga xam ne faydu am na ko te war na koo am ci jaam bi mooy jaam bi toroxlul yàlla dëggantaan dellu ci yàlla euh, am benn jubluwaay nga xam ne ci yàlla la saxal di def lu baax jàpp ci sharia jàpp ci yoon wi dëgër ci ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yàlla subhaanahu wa taala wax na ne képp koo xam ne jébbalul na yàlla ba pare ànd ak ci kaw lool muy rafetal kooku bokk na ci ñi nga xamante ne dañoo jàpp ci buum yu dëgër yi te mujj gu rafet nag dara du ko maye lu du tegu ci yoon yi gëm yàlla ak yoon yi ragal yàlla moolaana cheikh ibrahim wax na ne wa aqibatun mahmudatun laa yuniiluha siwa amali taqwa xafu llaha wasbiru mujj gu rafet dara mënu koo may jaamu yàlla bi lu dut jëf joo xamante ni dafa tegu ci ragal yàlla mu ne kon nangeen ngeen ragal yàlla te muñ ba bàyyi tere yi muñ ba def ndigal yi waaye muñ ba muñ jafe-jafe jamono faydu bi nag bu ñu xoolee danañ gis ne mooy jeexital wala mooy li ëpp solo tànneef yoon yooni góor yu baax yi jàll yépp ànd ak seen yoon yi lépp mbaax la ndax benn jubluwaay la am mooy jàkkaarloog bakkan bi xeex ak moom bakkan boobu nga xam ne mbooleem wàll wi mbooleem xutb yi fi jaar amuñu woon benn bëgg-bëgg lu ñi fexe ba ba delloo bakkan ci sell delloo bakkan ci topp yàlla mi nga xam ne bakkan heure bu nekk dafay taxaw ngir jàmmaarloog yàlla waaye ngir jàmmaarloog ndogalu yàlla yi boroom xam-xam yi ak ñooñ siira ak ñooñ tasawuf seen dox ci bakkan mooy ñi fexe ba bakkan bi sell bakkan bi bu sellee xol bi dana mën a jëlee ci boromam jëlee ci xolam jëlee ci mbootam jëlee ci boromam ay xeetu xam-xamu maarifa yoo xamante ne boo ko doon xool ci téere doo ko mën a am waaye ci yëg-yëg nga koy amee ndax lakinnaha biduni zawqin maa duri wa zawqu yugni fihi an muabbiri am na loo xamante ni ci xam-xam yëg-yëg rek moo ci mën a yëggale nit te nit bu demee ba yëgg ci yëg yëg du soxlaati ku koy xibaar ci loolu te boo xoolee faydu bi ñëwam mooy dafa ñëw ngir génnee nit ñi ci xat-xatu bokkaale yàlla dafa ñëw ngir ndërmeel bokkaale yàlla ba nga xam ne nit du gëm ne yàlla moo wàcc ci diw nit du gëm ne yàlla dafa am doom waaye dafay kennal yàlla te xam ne yàlla mooy dëgg te leneen lu dul yàlla rek amul sax ci dëggantaan waaye bu amee tamit melokaanu jaam rek lay feeñoo Baay wax na ne wa kada alxuluulu aw albunuwatu lam yamil lilkulli gayru axi shaqa shaqaain mubrami alrabu xaqun maa siwaahu abiduhu bal hal gabaawata wanxu naxwi taslami ne yàlla dëgg la keneen ku yàlla rek sa feeñu waaye majaas bi jaamu yàlla rek nga ci mën a nekk bàyyil dof nga topp sama gannaaw boo toppee sama gannaaw danaa la xam ne danaa la xamal ne yàlla rotul ci benn jëmm waaye yàlla jurut te kenn juru ko te loolu laaya bi leeraloon na ko lam yalid walam yulad te yoon boobu Mawlana Cheikh Ibrahim bëgg a teg jaam bi ba fay du tàkkee ba léegi mooy mu teg ko ci njub boo xam ne dafay yegg ci jeex ci yàlla boo xam ne ci lay tàmbalee nag di dox doxin woo xamante ne du taxaw Mawlana Cheikh Ibrahim wax na ne واشكر ربي الهم fa رشده فاصغر اتباعي بريء من الشرك maa ngi sant sama borom mi nga xam ne moo ma yanqeewal njub njub bi nekk ci moom ba nga xam ne ñu gën a tuuti ci samay taalibe mucc nañ ci lépp loo xamante ne bokkaale yàlla la te njub googu nag faydu bi buntu la pour oote ci te moom tamit ci loolu rek la doon oote daawtu rabbi an yaumma hadi kulla alwara wa yaxmaduuna saayi أسأله بذاته العلية وبصفات ذاته البهية يقضي حوائجي ويوليني المدد ويسلك العالم بنهج الرشد mii ñaan boromam ne njub gi nekk ci moom yàlla na matal ndax bu matalee jàmmu mat bu matalee xam-xam tasaaroo bu mate bu matee njub ak tegu ci yoonu njub tasaaroo nit ñi nag gërëm ma ci dox bi ma dox ba yegg ci loolu ndax am na ñoo xam ne bëgg nañ ñi gërëm leen ci lu ñu defut wa yuhibbuuna an yuhmadu bima lam yafaalu waaye boo defee lu baax ñi gërëm la ci dara nekku ci waaye mu ñaan yàlla yàlla ommat àddina yëpp teg leen ci yoonu njubam faydu bii nag buntam mooy nit ki am fatxu ci yàlla njëkk te bàyyi firi woon na fatxu mooy lan di ko wax maam maas ca ngodi ba nankaan tadabbari l adkaara ya muaadu wa rabbuna almuhayminu almalaadu waltaqtaci alnadara an siwaahu xata ida lam yabqa illa allahu fa innama alfatxu lada alayaani tarkuka ma siwaahu biliqaani Euh, lawraat yaa ngi noonu nanga ko jàng xalaat ci xalam ci boo ko xalaatee da nga xam ne ki tënk ñëpp not ñëpp kenn la rek mooy yàlla te fatxu ci gaaña nag mooy nga sànni am ak leneen lu dul yàlla gannaaw bi jaam bi fanaawoo fanaawo walis fanaawoom dox ci yegg ci réer ci jëmmi yàlla ji waxuma la réeree yàlla waaye reex réer ci jëmmi yàlla bi nga xam ne bàyyi ci lay wax ne mooy dëggantaani njub dalaalun bi daatillaahi aynu hidayatin fa iyaaka wa naqda al muaddi ila al basi réer ci jëmmu yàlla ji mooy mooy dëggantaani njub jaam bi bu demee ba yegg foofu dana yegg ci teeg dund boo xamante ne mënu koo mellal ak làmmiñam fa biha min safwi ayshin ma tashaa wafqa amaani foofu da fa fekk teeg dund boo xamante ne ni nga ko mbébétee rek noonu nga koy fekkee kon fatxu mooy bunt bi waaye yegg ci xam yàlla te boo xoolee bàyyi wax na mag ñu bëri garanti naa leen da ngeen am fatxu gannaaw fatxu da ngeen am maarifa uteeg li nga xam ne euh, euh, ñiy waxantu tey moom la ñuy wax Mawlana Cheikh Ibrahim fatxu rek la indi di nar ay nar yoo xamante ne jëleewuñ ko lu dut ci seen seytaane bopp boo xamante ne moo leen koy yànqeewal gëm ko ci seen xol te fekk na xol yooyu lim gëm baaxul bakkan yooyu lim topp kañaana ko waral ak bëgg a dëgg te dëgg ci yàlla yàlla bu ko xasee ba saxal kenn mënu koo changer waaye bëgg a soril nit ñi li nga xamante ne Mawlana Cheikh Ibrahim ci la oote subhaanaka hada buhtaanun azim loolu ay nar la yoo xamante ne nit ñi ñoo ko sos loolu lañ bébétoon mu am waaye yàlla du loolu la def ku bëgg yoonu njub bëgg yegg ci xam yàlla dëggantaan da ngay ànd ci gannaaw baay Muhammad Mustafa wal Mujtaba moo doon wax ne inni liman talaba alhuda xaqan aqulu ala sabili nusxi wal irshaadi bicheikh ibrahima faltataallaqan tanal almuna min xaadirin aw baadi wa tajid ala sirri ilahi mataliban ma in tura bi tafattuti l akbaadi mu ne eh, eh, maa ngi wax kuy sàkku yoonu njub maa ngi lay wax di la laay bire di la jubal ne jàppal ci Mawlana Cheikh Ibrahim boo ko defee da nga am sa mboolem càkkuteef ak foo munti jógee ak foo munti bokk waaye da nga am sa càkkuteef ci yàlla yoo xamante ni boo doon dox yow sa doxi bopp kese amaana sa rees wi mun naa toj te fekk ne càkkuteef yooyu doo ci yegg képp koo xam ne nag sa bakkan amut ci lu mu lay xiir lu dul jéem a wàññi loolu nga xam ne bàyyi ci la doon oote xamal ne sa bakkan mi ngi lay wommat ci loo xamante ne sa alkande moo ci nekk ndax wax dëgg la in qaala qaala sawaaban kulluhu xikamu aw xata zaala alxitaaf alhamdulilahi bu waxee lu mu wax dëgg la bu bindee lépp luy lënt-lënt mu yëkkati ko waaye bu ñaanee yàlla lu mu ñaan yàlla yàlla may ko ko te moo wax ci xaalam yi gën a sell aleyka salaatullahi summa salaamuhu biha nadamun liman li del fayd shannaa képp koo xam ne yaa ngi jéem a ŋàññi faydu bi wala di ci wax loo xamante ne waxantuwut mu ne yàlla na ko yàlla may ci loolu yàlla na ci jëlee ab réccu bi nag ci bañ a ñu baax ñi toog nañ lu yàgg di xaar jant faydu bi fenq ndax bu fenqee xol yi yàlla dana ko nàndal xol yi dana am ay xeetu meññat yoo xamante ni bu taxutoon faydu bi du ko am ndax faydu bi ba mu ñëwee meññat na ci xol yi xam yàlla waaye indi na fa meññat bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi na fi meññat tegu ci yoon yi jàngale lislaam ànd ak tegginu ànd ak def lu baax taxawee àq borom bi nu mu waree waaye sàmm wanteeg àq morom bi nu mu gën a rafetee ak mbokkoo mbokkoo lislaam boo xamante ne ab deret munu koo naxasal mënu koo sànni yëkkati it ay wàll yu kawe ci xam-xam ñoo xam ne am nañ xam-xam ngir bokk bi ñu bokk ci faydu ñoo xam ne yegg nañ ci sax mbokkoog arab yi mbokkoog ñu dul arab yi mbokkoog mbooleem jullit ñi te dara indilu leen eh, jàngat gu baax goog lu dul faydu Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu bu ñu demee nag ba jamono gis ay nit yoo xamante ne dañuy jéem a rekki loolu wala di jéem a fontoo may-may yàlla bu yaatu boobu nga xamante ne yàlla may na ko Mawlana Cheikh Ibrahim da xam ne dëggantaan daal ñii àddina moo leen wor waaye seytaane bi nekk ci seen biir moo leen wor di leen rafetalal seen jëf yi ñi jàpp ne li ñuy def lu rafet la te fekk ne loolu dara gënu koo ñaaw fu ñu nekk réer a fa nekk li ñuy oote yooni réer la bu ñu demee ba xotti xorma yi ngir seen réer. bëgg fee amal loo xamante ne yàq la dëggantaan dañuy xam ne daal ñii liñ nekk nii réer rek moo leen ko yóbbee te wa jaahilu shay'i taban laa yuqawimuhu walbuhrujiyu ala ma shaa yaatamidu nit lu mu réeree du ko may ab dayo ku doye di nag ci lu ko neex na ci wéeru buñ demee nag ba jant yu leer yooyu nit bëgg wax ne jant bi leeru dañuy xam ne yow yàllaa la nattoo ay bët yu yu yu yu yu wànnentu wala bët yu gumba ndax qad tunkiru al aynu daw alchamsi min ramadin wa yunkiru l famu taama al maai min saqami bu dee da ngaa jàpp ne euh, euh, sa euh, ndox bi neexatu jàppal ne mun na am da ngaa da ngaa feebar rek bu dee da ngaa jàpp ne nit ñi tamit seen parfum yi neexut amaana da ngaa soj wa in kunta maskuuman fa laysa bi laaiqin maqaaluka haada almisku laysa bi faaiqi sa soj bu mu tax nga ne parfum yi neexatul waaye sa bët yu gumba bu mu tax nga ne jant bi leeratul ndax wa shamsu an ayuni l umyaani gaa'ibatun wa in wa in adaat biha al ajwaau wa in ku dem ba nga xam ne eh, eh, jant bi fi mu leeral yëpp nga ne jant bi leerul loolu day fekk ne jàngoro bi ci sa bët yi la nekk fitna yi nga xam ne nag mi ngi xew ci buntu ci turi baay nit ñi di ko ko waxee bët bu set nit ñaa ngi gis mi ngi gën a màgg mi ngi gën a yaatu di indi alkaande ñoo xamante ne mënoon nañoo tegu ci yoonu njub te dara munta muccal jaamu yàlla yi ak ñi oote woo Mawlana Cheikh Ibrahim ci loolu lu dul nit ñi dellu jàngalewaat yooni Cheikh Ibrahim mooy lan jàngalewaat Cheikh Ibrahim lim oote mooy lan ak njubam gi nga xamante ni dara gënu ko jub te boo doon seet ab jubadi ci mbiram doo ko fa gis ndax wax na ci tansiis bayti jàmbur ne wa nahju sabili waadihun li man ihtada wa qad ba man yabgiu jaaji wa yatlubu yoonam dafa leer bu dee nag dëng-dëng nga ciy wër dëgg-dëgg da nga da da nga perte waaye doo fa gis dëng-dëng lim soxla ci nit ki mooy mu yar boppam ànd ak teggin wax na ci rixlaam ci Mauritanie ne fa hadibu nufuusa wal axlaaqa likay tasuunu sirra wal adwaaqa tuwaafiqu al akfaa wal ashkaala fal nañ yar bakkan yi nañ jéem a yaru am teggin ngir ñi méngoog li nga xamante ne moom la indi ndax lim indi lu leer la te benn lënt lënt nekku ci faydu bi nag jaar na ci ay jaaruwaay yu bëri jaar na ci jaaruwaay bu njëkk bi nga xam ne mooy jaaruwaay ba ko Mawlana Cheikh Ibrahim njëkkee oote jamono koosi lim ci daj kenn mënatu koo nettali sax ndax métti xol yi attanu attanatu ko nit ñi noonoo ko xatal ko ngir ne faydu bu mu feeñ waaye yàlla fa la waree na dëgg dëgg lii nii mbiram la te kenn mënu koo fay ndax nit ñi mën nañoo jur jéem a suul ker waaye ker moom bañ nana lu dul ne mi ngi ci kaw rek kenn mënu koo suul yàlla eh, xeex bi ko nit ñi xeex bu doon ne du dëgg jugeewut ci yàlla kon faydu bi nax saay na bu yàgg waaye dëgg la bu jugee ci yàlla boo xamante ne yàlla moo koy dëgëral waaye moo Mawlana Cheikh Ibrahim taxaw di ko défendre ay ñaanam waaye di ko défendre ci oote jëm ci dëgg boo xamante ne ragalu ci dara ma ne Mawlana Cheikh Ibrahim faydu bi jaar na ci ay marxala yu bëri yoo xam ne amaana temps bi mayewut pour ñu tudd koo jaar ci euh, heure bi mu koy oote wante ceeg ay noon wante ceeg ay xeex waaye mu dimbale ko xam-xamam bu waxee nga dégg jëriñu waxoon na ko ci Konaakiri ne qad samiu faraida alfawaidi min madadi alxatmi tijaani qaidi ñi dégg ci moom xam-xam yoo xamante ne lu mel noonu ci xam-xam kenn mësu koo dégg waaye défendre na ko moom boppam ak yi ñaanam yi nga xam ne dafa tolloog bomb fu mu dar rek ñu fay noonam yëpp dañuy alaku nga dégg muy wax ne rab bi yu rabbi yubaddiduhum rabbi yushattituhum rabbi yusayiruhum li sahmihi hadafa nga xam ne yooyu yëpp ay balla yoo xamante ne mi ngi ko doon sànni noonami ngir faydu bi mucc waaye moom it mu muccal jaamu yàlla yi ngir teg leen ci yooni njub te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la defee eh, mu nekk pakk bi nga xamante ne moo dox ci digganteem ak noon yi moo tax kenn mënu ci moom dara yasuumuuna dayman lil xadiimi wa innahu tatarrasa bil muxtaari qabla rimaa'i dem nañ ba faydu yegg ci heure yi ubbeeku nga xam ne lu gudd la gannaaw ajam gu njëkk nga xam ne yàlla ci la ko ubbilee àddina benn yoon mu dajeek nit ñoo xamante ne ku nekk lim def ci yow ba nga demee rek tasaare nga njub ci fi nga jëm ndax moom tukkee mi li muy bëri bëri tasaare njub rek la ci jublu woon mooy asiiru ila kulli nawaaxi laallani ara amali fi llaahi wa huwa kabiru day dox ci wàll àddina yépp ngir gis bëgg-bëggam ci yàlla te bëgg-bëggam lu màgg la mooy nit ñi jub tegu ci yooni njub yàlla ubbil ko xol ak li ñuy dëgër dëgër waaye ubbil ko àddina moo tax maalam tijaani waxoon ko ne ko fa bihi yatimu lfatxu summa bi fatxihi fatxu lbilaadi wa saairu l axlaaqi mbooleem li tëju woon rek yàlla dana ko ubbee ci buntu baay àddina dikkal ko Euh, mu yar ay taalibe yoo xam ne boo leen gisee nga fàttali saxaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñoom boo leen gisee nga fàttali lañ daan wax ci wàllu yàlla yu baax yi te ñun ñëpp ay wàllu yàlla yu baax lañ ndax wax na ne gisut ñu mel ni ñu mel ni ay taalibeem ndax li leen ko may mooy jaay nañ seen bakkan yi joxe nañ alal yi te dara waralu ko lu ludut topp xaal yi gën a rafet baaxu nufuusa baaxu nufuusa wal amwaala kal muminina thumma wal amwaala kal muminina habada ahwala yar ay nit ba nga xam ne boo ñëwee ci keppaaram nga fekk fa ay ndaw yu xam waaye nga fekk fa ay mag tamit yu xam la Muhammad Abdullah Sayd di mellal ci xasidaam ba naan wa tara al akaabira wal asaagira qad fanaw wa baqaw wa gaabu fi lilahi taala ma in tara illa kamilan aarifan billahi minhum haadiyan dallaala mag ñi jeex nañ ci yàlla des ci yàlla ndaw ñi jeex nañ ci yàlla des ci yàlla doo seetantal kenn xaalam lu du da fekk ne nit ku mag la ku jeex ci yàlla la buñ demee ba tey nag ndax wax ji gàtt na mënatuñ ko matal waaye lenn rek laa bëgg a tëjee mooy ne sëriñ si ñu dëkkee dëkk bi kilifa yi muqaddam yi ñoom ñëpp dañoo am wareef ci faydu bi fi mu toll nii mooy ñi génn wax nit ñi lan mooy dëgg bi li nga xam ne caaxaan la ñu wax ne lii caaxaan la te ñooñ caaxaan lim leen jaral pour seen caaxaan yi sax fi ñoom it seen dëgg gi na leen jaral ngir mu sax ci loolu ndax ki ñu oote woo ne moom lañ doon moom lañ topp Mawlana Cheikh Ibrahim ci loolu rek la nekkoon bind na leetar suñ maam maam Abdou Niang bind ko Omar ibnu Malik wax leen ci naka la taalibe war a mel wax leen ci mujjante maa leetar bi ne gannaaw sama leetar bi képp ku ko dégg tot bàyyi woo li nga nekk topp li ma ne ak li ma leen oo dëggantaan daal danaa ñaan ndigal fa yàlla ñaan leen yàlla ñu àllaku te bés penc danaa leen dalaa danaa leen danaa xulóog ñoom ci kanamu yàlla subhaanahu wa te waxoon na fenn ne yéen mag ñi gërëm naa leen waaye maa ngi leen di dénk ne na ngeen sax ci oote jëm ci yàlla ci laay bire nit ñi ci teg leen ci yoonu njub te loolu bu ngeen ko def lu dul ne da ngeen a tàmbalee seen bopp nu ngeen di tàmbalee seen bopp mooy lu baax lu ngeen digle na ngeen ci jiitu lu bon lu ngeen tere na ngeen ko njëkk bàyyi te bu leen teyal bu ngeen tayalee ñu bëri danañ alakoo ci seen buntu ndax dara gënta mun a lor amatu naas gi lu mel ni tarxiis yi nga xamante ne mag ñi ñi ngi koy tarxiis te moo Mawlana Cheikh Ibrahim ni mu doon doxee mooy li mu waxoon ci leetaram bi wax ko Cheikhaani ne ko man daal ñun nahnu rijaalul xaqi ñun ay góori dëgg lañ duñ ay jigéen duñ ay xale yu ndaw fa man waafaqanaa fa ahlan wa sahlan wa man xaalafanaa fa naqulu lahu hada firaaqu bayni wa baynak ñun ay góor yi dëgg lañ duñ ay jigéen du ay xale yu ndaw ku dëppoog ñun ci ñu nekk ñi tatagal la ñëwal nga nekk ak ñun ci ñu nekk képp koo xam ne liñ nekk nii mënoo cee dëppoog man danaa la wax li xadir waxoon mooy ne nañ tàqalikoo rek bu nga xam ne ku nekk day dem te kenn du du du du du lor moromam kon ñun ñëpp kenn ku nekk ci ñun am na wàll pour baaxal lim mën a baaxal kenn ku nekk si ñun bu demee ba mënta baaxal tamit na fexe ba bu mu tàccul caaxaan àddina dafa gàtt boo demee ba xam ne àddina dafa gàtt nag fexal ba def ko ci loo xamante ne dafa neex yàlla subhaanahu wa taala ida kuntu aalamu ilma alyaqin bi ann jamia xayaati ka saaca fa lima la akunu daninan biha wa ajcaluha fi salaaxin wa taaca wa taqdi ilahi ma ataaka mataliban min alabdi ibrahima walyatihi aljalbu bijaahi rasulillahi wa saxbi jumlatan fa nafis kurubi nafis alkarba nafisa wa axiru dacwana an alhamdulilahi rabbilalamin wasalaam asalaamaaleykum wa rahmatullah